yow yàlla muy buurub jibril ak mikaayil tey buurub israfil maa ngi lay ñaan nga musal ma ci tàngooru sawara ak mbugalum bàmmeel allahuma rabba jabraila wa mikaila wa rabba israfila audu bika min xarri nnaari wa min adabi alqabr allahuma rabba jabraila wa mikaila wa rabba israfila audu bika min xarri nnaari wa min adabi alqabr xadiisu bis bi yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na ku julli ngir yàlla ñeent fukki fan ci mbooloo moo xam ne dina dab kabar bu njëkk ba dees na ko bindal ñaari dañtalu dañtalu ci sawara ak dañtalu ci naafiq xadis bi ak tirmidi nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man salla lillahi arbaina yowman fi jamaatin yudriku takbiratal ula kutibat lahu baraataani baraatun min annaar wa baraatun min annifaq